ay ca ma dëkk ci si de presse locale tey ñu ñu ki nga le maire de la commune de Sud La Diatta ginnaaw fëgg dënn ba fëgg taabal ja rajaxe caméra yi président ba général Moussa Fall ki nga procureur de la république ba yekk Mariam Faisal, Sall waa gendarmerie Massar ñoo ko convocation ki ñu ko xamal Nité TV wala nité international ñoom tey ñu ngi ñuy waxal ne Bilal Diatta kay dañu ko convoqué waaye na du daay ba mu xëyee dem wuyu ji sax dafa fëggati dënn ba fëgg bopp ba ne leen ñibbi rek dugg génn waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Feeling Dakar ni ma waaye xaw tuuti mu tàng fële ca Kër Massar naka nga xam ne moom mooy Bilal Diatta ba ñu ko dóoree convocation dafa xëy wuyu ji gars yi gunge ko def mbooloo ca gendarmerie ba waaye gendarmerie ba da leen a mujj ñi nga xam ne itam ñoom ñooy waa Fidèle Info di ma xamal ne ma Bilal Diatta kay dañ koo wóolu fële nga xamante ne moom

ak ki nga xam ne moom mooy général Moussa Fall waaye nag ñi nga xamante ne itam ñoom la yoon tegoon loxo muy ki nga xamante ne le doyen Seck ki nga xam ne moom mooy la doyen Kébé ak ki nga xam ne moom mooy Babacar Mbaye ak ki nga xam ne moom mooy Ndofène yoon mu jënd leen a bàyyi ba placé leen si li nga xamante ne mooy sous contrôle judiciaire ki ñu placé gul si contrôle judiciaire kay te ñu xam ne le 29 incha allah dina ñëw fii ci Kër Massar amul show bu rëy mooy le Faramaren le golden boy de la musique sénégalaise Wally Seck El Ramdan ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Diagne Events ñooy ñëw fële nga xam ne mooy ca terrain Yékini derrière Bruce Doré ba ci wetu 71 ba ku ca bëgg ñëw da ngay joxe li nga xam ne moom mooy mille francs mooy entrée ba VIP di 10 000 francs boo bëggee réservation da nga koy def ci 78 102 96 22 77 224 25 67 lii ñëw nag te nuyoo ñun ñëpp ñu xam ko mooy weer wu ter wi weer wu màgg wi Ramadan Karim ñu ñaanalante ñaanal ñëpp jàmm yàlla na yàlla may jàmm ñu woor ci bismillah daal di woori ci bismillah woorandoo Ramadan Ramadan Mubarak.